sallallahu ala muhammadin barki borom Touba barki maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina suñu mbokki internet yi nga xam ne yéenay topp seen chaîne bi di Khidma 28 TV muy télé bi leen di toppal tànki sëriñ bi. tey jii di juróom-ñaari fan ci rajab atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ci ati gàddaay gi ñu ngi fii nag ci Poroxaan ci. liggéey bu sell bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy def sil soxna Mariama Bousso Diarratullah waaye nag ñëw ci ëttub maam Cheikh Ibrahima Fall kon particularité daal dinay feeñ ci li ñuy defati ndax kuy liggéeyal soxna jaara ba dajeeg waa kër Cheikh Ibrahima sa xel war naa mën a dal ñu ngi fii nag ci ëttub sëñ Dame jëng xam naa bu ñu joxee sëriñ bi kàddu gi dana mën a leeral ci ay waajuram ngir ñiy dëgg te xam ne moom miy wax sañ naa wax ñi ngi nuyuwaale sëñ Saliou jëng bi nga xam ne buntam la ci barab bi nga xam ne moom lañ leen fekk ñu fiy liggéeyale yàlla ci ci buntub Cheikh Ibrahima Fall. xam naa dañuy bañ a téye kàddu gi lu yàgg bu ko defee jox sëriñ bi mu ubbi nuyoo taarixal ñu jëmmam ba ñuy seetaan xam kiy wax kum doon bu ko defee ñu soog a sóobu ci waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 ñu gën koo xam ci sëriñ daam xam xam xamle moom sëriñ Mouhamadou Roqiya Dieng Baye Fall moom sëriñ daam Seck moom maam Cheikh Ibrahima Fall dëkki fii nag ci Poroxaan te féetewoo fee ca Ziguinchor ñuy ziar mbooleem ñu ñuy àndal di leen xamal ne bëgg wax rek moom taxu noo wax war a wax it taxu noo wax dañuy wax loo rek nu fa yéenee wax ngir nuy wax loo waaye xam li ñuy wax sax taxu noo wax nag ñu bàyyi loo xel ñëpp ci loolu ba dañoo tàbbi ci kàddu yi ndax xamaguñu ki nuy laaj fu mu nuy laaj jëminu ba tax na kon li gën a am solo rek mooy nisful ilmi laa adri nit bu nangoo ne xamut rek lum juumati des na ko mën a jéggal waaye bu jiitoo nag ci ak xam lum juumati du su ko jéggal ndax lu ñu fa yéenee wax sëñ ma Dieng moom yi muy wax nag dafa doonoon jaamu yàlla bu bëggoon Cheikh Ibrahima Fall toppoon ko lool itam nag ba ku ko xam ci loolu rek nga ko xamoon waaye mu amoon ndigalal ñëw poroxaan fii liggéeyal fii soxna si mu bàyyi ko ci kaddu sëriñam boobu di sëñ Dame Seck xam ne bis dafa jóge dëkk bu ñuy wax Paal ñëw fekk ko Casamance ne ko Modou xam nga Porokhane mu ne ko ah, won nañ ma yoon ma fa jëm rek de am na bis daal ñu dem ba ñoro suñu oto paan fa ñu ne ma yoon wi moo jëm poroxaan waaye nag dëkk ba demaguma fa mun ne ko bisimilah yi jàmm Modou mu ne ko Fall mu ne ko man de dama xool tëdd ba guddi jóor sama jëfi juróom-ñaar fukki at ak juróom tiim ko xool ko xool sama diggante ak sëñ Bamba ak Seex Rafal gisuma ci ngont ma gontal soxna Jaara moo du ñu xamal ma ne ma képp ku xëyal soxna jaar te ko xëyal Serigne Touba te gontaloo soxna jaar sa jëf deesu ko nangu ma bëggoon bu fekkee xam nga fa dara ñu ànd dem fa bu fekkee xamoo fa kenn itam ñu ànd dem fa buñ fa demee ñaan leen ñaan ña yor dëkk ba bu ñu mënee dimbale bu fekkee sunu mbon gi soxna si xajoo na ko ñu dëkk ca dëkk ba di ko wéttali ba luñ koy defal ñu fekkee ca dara mbaa sunu dara fekkee ko bu dul loolu it ñu dëkk ca dëkk ya jegeeg poroxaan ba xam ne saa suñu wootee poroxaan ñu man faa dem waaye Modou mu naa ne ko soxna jaara saalihaat la de mooy ndey ji gën ci ndey daal wax ne jëfam day suñu borom won na ma ko gis naa ko nawloo naa ko te bëgg naa bokk ci ñu koy jëfal ndax xam naa ñàkk koo jëfal wóorul ci taalibe buy wuyoo buy wuyoo Sëriñ Tuubaa sëñ ah, man de amoon naa fa sama xarit ce imaam yi dëkk ba la bokk kon nañ fa dem loolu mooy sama bas ñoom fii ci Poroxaan bañ ñëwee sëñ Abdou Diop ne tël na ah, sëñ mët Jeng ci Poroxaan kon di lépp Poroxaan baax na sëñ Mat Jeng ne ko waxal ndànk sama sëriñ laa àndal daal di ànd ak moom ñëw ba mu waxee pas-pas boobu mu ne ko ah kay ni ko bëggee lañ la koy defal kookee moom lañ joxoon kër gi bàcc sekk nekkoon bi nga xamante ne dem na ba suñ borom dogal la muy dogal ci moom njaboot ga doon miraas wecc ku kër ga sëñ Moustapha jëndaat kër ga jox ko sëñ sëñ bàcc Seck mi fi nekkoon borom dëkk ñuy dox ba sëñ bi dem ba mu yàgg mu xoolaat ne sama ndigalal sëñ ba maa ngi koy bëgg a booyal booba la dellusiwaat fekk sëñ Moustapha ca njaarim ñaan ko ngir dellusiwaat Poroxaan fii sëñ Moustapha ne ko loolu lu ñu yàkkamti woon la daal koy ne dawal gaaw boo demee Basiiroo nga fa boo demee wax ko noo ko bëggee mu defal la ko ni ko bëggee euh, loolu it mooy booleek sëñ Basiir mii ak sëñ Moustapha ba sëñ bi ñëwee la ko ko sëñ bi na ko ko sëñ bi joxoñe woon rek mooy noonu la ko ne dann mooy sunu ànd ak sëriñ Basiiru ba keroog ba muy soobee suñu borom waaye duñ mës a dàcc duñ mës a dellu gannaaw te it fekkoon na itam macha allah ñu xam ci moom ak njàmbaar ak comme nañ ko waxee woon ca gàmmo ga rek ndax xëy na moom xamuma woon waaye man xamoon naa ko ndax booba ndaw laa nekk ci dëkk bii ndax Poroxaan gi en 66 la fi nekk. booba Poroxaan genn kër fi màggal. kër gi fi màggal rek mooy kër sëñ ba sëñ Moustapha Bassirou ñu tuddee woon ko kër sëñ Bassirou foofu lañ daan màggale. bu guddee dongo daar yëpp lañuy daje ak waa dëkk yi ci wër yëpp foofu la ñuy daje ñu yekk boole cere yi teg ñu lekk fanaanee jàng benn tànt la woon. kon bu demee ba tey jii mu dem ba mujj yàgg mu mel ni ab luuma buñ ko wootee mu mel ni ab luuma mu dem ba tey mu toll nii mu toll kon sëñ Bass jàmbaar dëgg ngoog gar mi dëgg ngi noonu ku ku ku téye luñ ko joxoon la sëñ Bass ku téye luñ ko joxoon la lañ ko joxoñoon wallaahi wallaahi wallaahi watallaahi yàlla xam na ne fañ fañ tegoon baaraam ba foofu la waaxu jëm te kenn mënu koo te yegg dana yegg ndax la ko tee yegg bareetut waaw dem na ba teg loxoom ca loola kon dara waralu ko rek lu dul jëfe ndigal musta dellu gannaaw ci ndigal luñ ko joxoon ci poroxaan dawul dàcciwul te booba metti na naqari na booba ndax boobu aw yoon képp problème la fi woon waaye macha allah muy muñ ba lépp fekk ko fi waaw moo moo tax it ak gërmeem kenn du ko werante te gërmi gépp ak taalibe la ndax li ko waral mooy jom ak fulla ak fayda la àndal ak sange boppam nag ba kenn mënu ko bëtt fenn mu doon koo xamante ne lañ ko digaloon fexe na ba lépp lépp sotti ni mu ni te yàlla métim xam na ne mboolem ay baayam xam nañ lii ci moom waaw ndax xam nañ ne fulla ak fayda rek moo gunge ba fii ndax ñoom xamoon nañ fi Porokhane toll kon loolu dañ koy ñaanal suñu borom yal na ko yàlla may ak yeggale gu ànd ak jàmm ci barke sëñ ko ne danul dara ndigal rek la waaw ndigal képp la ñun luñ ñu xas digal rek ca loolu lañ nekk bañ noppee gis loolu wéy ci leneen waaye feek noo gis lañ ñu digal duñ ca teggi suñ tànk benn yoon te sëñ Moustapha waxoon suñu wayjur ne ko demal Basiro nga fa wax ko la nga la nga bëgg mu defal la ko ni ko bëgg looloo tax luñ bëgg rek ci moom lañ koy jaar it lii lañ lii lañ lii mooy li nga xamante ne moom la ñuy doxee diirab lim fi nekk itam amul genn kilifaam gu fi ñëw gu fi ñëw ba sëñ bi bëtt ko dem siyaare ji ko li sëñ Moustapha doon doon dund daf fi ñëw ba dem sëñ ma Jëng du fa dem ndax la ko war boo waxee mu ne kim ma joxoñoon doy na ma sëkk ab joxoñ bu ma sëñ bas woon tey ne ma kaay siyaare sëñ bi de bu subaa mu ñëw nii sax siyaare ko waaye ne damaa xeeb ma joxoñoon naa ne loolu la pas-pasu Baay Faal li nga xamante ne moom la ñuy duggee ci biir waxtaan wi di siyaare mbooleem ñu ñuy teewlu ak di ñu di ñu di seetaan di ñaan suñu borom yàlla boole defal jàmm ci barkeb soxna Jaara bismillah xam yi moom day mel ne pàcc bu njëkk bi mm-hmm. moom mooy moom na ma ko xamee mhm. moom ndax rabu ndëppam mooy sëñ Moussa Bachir moom ndeysaan ah, ndeysaan waaye nag man damay dellu si waat sa diggante waajur woowu ndax nit ñi moom boo leen wooyee mhm. mhm. bu mag rek moo ma yow dëgg la hubbu zaati sa waajur nag diggante ak sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall la nga dikkal ma ci jërëjëf maanaam dafa doon jëmm joo xamante ne boo toogoon ak moom sax ne ko Cheikh yàlla la sëñ ma Dieng ak xërëm ci Cheikh Rafal day toog di la déglu ba xam ndax da nga wax lu kawe yàlla ah du du doylu euh, bëgg na Cheikh Rafal ba xam ne ku mas a gis ngay góor di jigéen baa ngay ndaw dina liggéeyal ci yow Cheikh ngir mën a am ngërëmal Cheikh Rafal ci yow dafa daan wax ne jëfandigal jëfandigal moo ma gënal lu ma mën a am toog te jëfewu ma ndigal ak mooy yàlla laa ko teg daal wax ne di digle moo ma gënal doon kuy digle moo tax saa su ma jotee ndigal du ma bëgg mu fanaan samay loxo daan ma wax daam ma ne ko faal ma na ngeen góorgóorlu ndax kuñ kuñ dul digal am nga problème waaye ku ñuy digal te joo ko jëfee am ngay problème na ngeen góorgóorlu ba bu leen fanaanaat fanaanooti ndigal te jéemu leen ca dara daal ne ndigal lu ñu leen digalati fas yéene leen koo def ndax lu ko mooy kat am na ku ne ca gannaaw di ñëw te bu yegg yegsee moom lu mu dégg jëfe ko daal di wax ne nag li tax Cheikh Rafal rawkat mooy ndigal mustatab bi ci noppam ci jéem mukk daal di wax ndigal des koy jéem nag des koy jéem te kenn jéemagul na jëfe ndigal ba tële ko daal di wax ne kon suñ borom subhanahu wa taala bi muy wax ci ci ci ci yi gën ci julli yi di leen boole ci xeet wi gën ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari Cheikh Ibra nag ba nga koy firi dafa wax ne xeet wi gën ci xeet yi mooy xeet wi nangul yonent bi daal wax ne nangul yonent bi nag mi ngi ci nangoo jëfe ndigali sunu borom te xam nuñ koy jëfe daal di wax ne mooy nag ba jéem ba doo xam li la yàlla di tere ba di ci teg sub tànk buñ dañ ko tere daal di wax ne nag boo ko defee nag sañ ngaa digle sañ ngaa tere boo yeggee ci noonu rek ne na sañ ngaa digle sañ ngaa tere mooy bu fekkente ne kenn gisu la ci tere yi suñu borom te ñëpp ñu ngi lay séen ci yi suñu borom ne bu boobaa sañ ngaa sañ ngaa digle sañ ngaa tere ndax bokk na ci bokk nga ci xayra umma ndax xayra umma mooy ñi nga xamante ne dañuy digle lu baax gannaaw biñ ko xamee ba jëfee ko kon niñ koy tekkee boo xoolee da ngay jàpp ne Cheikh Rafal na mu koy tekkee daa gën a dégg ñëpp aw te aw tekkiin ndax ñii dañ naan bokk ngeen ci xeet bi gën ci xeet yi ndax yéen da ngeen di digle lu baax di tere lu bon déedéet digle lu baax di tere lu bon taxul nga bokk ci xeet bi bokk ci xeet bi mooy da ngay xam lu baax digle ko ba noppi jëfe ko boo noppee nag lu bon lee fexeel ba xam la nga xamante ne moo ca bon te bul ko jëfe ndax boo ko jëfewut doo ko tere kenn du la ca roy daal wax ne kon ku ñuy roy ku nekk day fexee tege ci yoon wuñ koy roy moo tax kenn du Seex Rafal ci ak ci dégg rek suñu borom xikma bi ma ko mayoon dafa kawe woon dafa kawe woon jaami jaami yàlla ci ci xikma mu doon koo xamante ne maanaam da daawut waxee euh, maanaam euh, so coobarey boppam da daan déglu yàlla ci mu wax ko ni muy waxee waaw ndax ndax ndax li ñuy wax déglu yàlla mooy suñ ko waxee nag tey jamono daa bari ay nit ñoo xamante ne sëñ bi dañu yaakaar ne yàlla day wax nga dégg déedéet waaye yàlla ruux lay waxal te yàlla saa su waxee ak ruu doomu aadama doomu doomu aadama bi sañ wax waaye saa su sa saa soo dégloo sa ruu te waxut sa bakkan wax ak moo tax waxee bakkan doon musiba te jamono ji li ciy waxee bakkan daa bari moo tax wax ju dañ yombu fi mag ña nag dañ doon moytoo waxee seen bakkan ndax dañoo yaroon seen bakkan fexe ba moom ko fexe ba seen ruu di dund seen bakkan faatu loolu moo leen dimbale woon contraire bi nag moo am tey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 في كل سهر وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر